mambu so mi jina ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta mamaaram eh, jërë ngeen jëf eh, mbokk yi ci cadre entretien yi nga xamne ñu ngi koy jël ci magalu poroxaan ba léegi ñu ngi ci ñu ngi taxaw ak serigne mam Cheikh mbake di kenn ci njabot serigne Touba Cheikh Bamba khalim rasoul ñu xamé ko bu baaxa baax ci eh, mu nekk ci panelist yi nga xamne euh màggalu poroxaan tànn nañ ko ngir mu waxtaan ak euh, askan wi ci lu jëm ci wàllu culture waaye itam jox message boo xam ne buñ ñibbee dinañ fàttaliku soxna Jaara waaye dinañ mën a fàttaliku yeneen mbir yoo xam ne itam dégg nañ ko fii ci waxtaan yi sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw ah, jërëjëf euh, gannaaw bi sant yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu téléspectateurs yu yëpp tey alhamdulilahi ñu ngi fii ci poroxaan ci pàkk bu lab pàkk bu sell pàkk bu soxna Jaara Buso radiyallahu euh, muy màggalu 2019 incha allah ñu nekk fii forum bi Euh, forum bi nga xam moom la ñuy def ci veille bi incha allah pour suba waajal ko màggal gi forum bi nag euh, am na solo ndax thèmes yi nga xam ne moom lañ fi jël tey doon ko traité euh, mooy réseaux yi maanaam inconvénients yi ci nekk ak avantages yi nga xam am na ko donc tey moom lañ jëloon ngir nan lañ ko mën a dëppale ba roy ci soxna Diarra Bousso radiyallahu anha mu nekk lu am solo loo xam ne sànq liñ ci wax rek mooy. Euh, euh, au niveau de la yes bi nga xam ñun ci lañ nekk di liggéey nga xam ne ñun teel nañ cee dugg teel nañ cee dugg am nañ ay compte YouTube am nañ ay euh, ay ay page Facebook am nañ ay Twitter lépp loolu lépp nag du dara lu dul ngir mën a jàllale message bi nga xam ne moom la fi suñu mag ñi baax ñu bàyyi rawatu ku mel ne Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul donc loolu ci lañ nekk donc nag loolu bu fekkee ne am na dana tax réseaux sociaux yi ñi nga xam ne noonu la ko yi jëfandikoo actuellement ñi nga xam ne mën naa wax ne fu bare bari ci àdduna bi moo leen tas moo leen moo leen moo taal guerre fa nekk printemps arabe bi daanaka euh, moo moo ko indi donc kon ñun jaadu na Sénégal euh, ñu teel ca jug teel ca taxaw moo tax forum bi ñëw di wax ci lu mel noonu donc nag kon dana nekk lu am solo loo xam ne li ñu ci wax rek mooy war nañ ci gën a euh, renforcer waat moyens yi nga xam ne mooy tax. Euh, maanaam tariixa yi wala boog euh, sunu njàngale mag ñu baax ñu rawat na ku mel ne soxna jaar bu sa radiyallahu anha donc euh, ñu gën koo maanaam renforcer foofu ba nga xam dana am gën a am ay site internet dana gën a am ay maanaam moyens yoo xam ne dana gën a mën a jàll message yi sinon bu ñu ko deful rek danañ ko bàyyeeg ñi nga xam ne xëy na peut-être ñoom la leen yitteel dara lu mooy yàq jikko yu wala boog jële fi li nga xam ne moom la fi mag ñi baax bàyyi raw na ñoo xam ne seen yitte seen xëy seen gont dara lu dul màbbu tasawuf tasawuf moo moo moom la soxna jaara Buso radiyallaahu anha doon dund ci loolu la nampate la Serigne Touba si am bam xaadim rasul mag ñu baax ñu nekk mi ñëpp loolu lañ doon dund donc nag fii jamono toll nga xam ne am nañ ay défi wala boog am nañ ñoo xam ne ñu ngi taxaw ngir màbb lu mel noonu jaadu na kon ñu def ay forum yu mel nii ngir sensibiliser nit ñi wax leen avantage yi nekk ñu da wuti ko waaye wax leen inconvénients yi ci nekk pour ñu moytundi ko donc nan forum la boo xam ne am na solo trop rawatina fii ñu ko defee ngir waajal màggalu soxna jaar bu soxna dina anha muy fii ci Poroxaan donc daal kon mbir la mu am solo moo xam ne ñi ngi wax rek euh, nit ñi nañ gën a wuti waaye wuti gi na ànd ak xam waaw ñi nga xam ne ay borom xam-xam la borom moyen lañ nañ gën a ubbi yaatal mbir mi gën ci waxtaan nit ñi ndax nit ñu bari ñu a taxaw rek nga xam moom loolu waxtaan kese moom euh, moom moo koy dindi est jotul yoonu murid am ay parce yaakaar naan ñàkkul euh, technicien yi wala tamit ñàkkul ñoo xamante nii war nañoo mën a jóg ngir xeex lu mel noonu est-ce noonu jóg taxaw. dëgg la xam nga wax rek du ko dindi c'est vrai li nga wax dëgg la mbir mi dafa war a ànd da ko war a accompagner ay jëf ay actes yoo xam ne yu yu tegu lay doon donc loolu wax naa ko léegi proposé naa ko léegi nee naa leen euh, yoonu yoonu murid sax maanaam xilaafa gi war na am benn site internet wala benn page moo xam li nga xam te xew na léegi muy Twitter ndax boo gisee euh, euh, borom personnalité yi nekk ci àdduna bi yëpp wala mag ñëpp wala borom xam-xam yëpp am nañ ay page yoo xam ne ca la ñuy waxtaanee ak nit ñi ba dem na fake news yi ngay dégg xam ne des dañ naan Euh, dara xew na Touba wala boog wax nañ Sëñ Touba nee na génn benn waaye jékki-jékki def audio wala def image daan ne Sëñ nee na nangam wala nangam nangam yooyu boobaa Euh, ca page boobu nga xam ne xalifa bi moo ko moom wala yoonu murid moo ko moom nga xam ne lu lu lu officiel lay doon boobaa mën nañ ko faa weddee mën nañ ko faa leerale waaye a am fu sukkandiku fu wóor pour mën a démentir wala pour mën a euh, dëggal benn effectivement waaw bu dara amee rek da ngay tas xibaar yi mën nañu faa jubali bu ñu fa jubalee léegi danga xam information am na wala amul donc kon loolu euh, noonu la jamonoy doxe kon da koo laaj waaye alhamdulilahi rabbil alamin lu nekk ci rek yalla mën naa def ñu réaliser ko inshallah rabbi ndax yakarna forum bu ñu jógee teunk conclusion bi ba yobul ko sëñ Mountakha yakarna lolu ñu bëgg inshallah rabbi mën naa nekk ndax lu yomb la bo xam-xam baangi fi moy yaa fi lepp ngi fi donc kon xéewal la koo xam internet dañ ko wara jëfëndiko ndax day yombal lu bare bare bare ndax message jall donc dal kon lolu nek lu am solo xam yakarna yaakaar naa buñ ci gën a rek li bëgg lepp dana ko inshallah du ngay tënk ci soxna ci ngir nga baxé ko ñi ñi sant ci waaw soxna ci mom limay may faral di wax rek sa su euh ku ñëw ci penc mi nga xam moy mooy nga xam ne bi fi soxna si jaar ndànn fay fay la woon même soxna si làqu na bañ denj ko fi dëkk bi kenn nekkatu fi ba gis nga li xew ci bi nga xam ne euh, euh, Cheikh Mahamadou Bachir wala boog Sëñ Tuubaa waxoon na leen ak ñam yónni woon pour ñëw xool si barab bi ak xàmmekaay yi fi defoon kon dalay lay war ne boobu nit kon dëkkatu fi daanaka lu dul euh, ñi ko war ci ay sañcaan yoo xam ne ay ñeneen ñoo fi nekkoon donc loolu ak léegi daa yàggut tey ku ñëw Poroxaan da gis ne liggéeyal yàlla suma wa taala rek mooy woon nekkal yàlla suma subhanahu wa taala rek mooy woon fii bi fi soxna jaar da nga xam ne fii euh, am na leen lu fi nekk loo xam du neen rek du neen kese euh, da ngay gis lépp loo xam ne war naa tax nit ki mën a jaamu yàlla suma subhanahu wa taala loo naa mën a tax mu dund ci jàmm ak salaam mi ngi ci dëkk bi loolu nekkal yàlla suma subhanahu wa taala te soxna jaar bu sa daga am loola nekkaloon daa nekkaloon suma taala wax nañu aay alxuraan bi mu njëkk ubbi bi mu ubbi kaamil bi di test sa boppam di xool ba xam lan la ko yàlla sant dégg nañ ne aay yu njëkk a jët wa mina layli fa tahajjat bihi naafilatan laka asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuuda wax nañ aay woo la yem aay woo suñu borom mi ngi wax yonent sallallahu alayhi wasallam daan ko soññi naan ko léegi jug di xiyaamu léegi guddi di julli di naafile ji guddi gi na boo ko def yàlla dana la may maqaam bu kawe moo xam ne euh, euh, dana dana yéeme dana kawe ci yàlla suma dana dana yëkkatiku lool soxna jaar bi mu gisee loolu la continuer moom di jaamu yàlla di liggéey di def lu baax ba yàlla suma subhaanahu wa ta'aala may ko maqaama koy muy Sëriñ Tuubaa maqaama ci Sëriñ Tuubaa Euh, euh, euh, maanaam li mu liggéeyal diine ak lu ko yàlla suma subhaana taala may yaakaar naa fu mu nekkoon fu ne lu kawe lay doon te tey fii mu nekk te yàlla suma subhaana boole ñu ko ñëpp xam nañ ne lu kawe lu màgg lu rëy la kon soxna Diarra Bousso foofu la tegoon bëtam malgré que at yi guddut ndax 33 ans la dund waaye loolu li ma ci wax soxna yi rek mooy soxna yi nañ góor góor waat xam ne jigéen bu la yàlla boole borom kër bu bon sax man nga ci am yàlla suma subhaana rawat na muy ku baax ndax imraata firawna yaakaar naa yàlla ñëpp dégg nañ ko mooy la femme de firawna maanaam Firawna ku bon la woon ku saay-saay la woon waaye gis nga soxnaam soxnaam ca wàllu yi la bokk ñu gën a kawe la bokk nga xam ne ma nga ci àjjana yi gën a kawe yàlla wan na ko këram ci àjjana avant muy faatu te pourtant mi ngi woon ci suuf suufu keppaaru ab ab ko xam dictateur la woon ko xam ne ku bon la woon waaye teewul jàmm na fa yàlla ba am loi ana mook kuy wax ashaduan la wa sana hamdu rasulullah kon damay wax ne soxna yi buñ jàpp ne rek ne prétexte ne kon fii mënu ma fi am lu baax déedéet yow jaamu fa yàlla suma subhanahu wa kon boo roy soxna jaara bu sa radiyallaahu anha da nga xam ne soxna jaara yàlla boole ko ne ko suñu mamadou anta sali mu nekk nit yu yàlla waaye nga xam moo naa yem ci ay loxo mu ñaanal ko rek waaye soxna jaara daa am leen loo xam ne bu ko bëggee faw mu koy liggéeyal boppam mu góorgóor jaam yàlla subhaanahu wa taala may ko te sëñ Tuubaa muy goo xam ne na ko Cheikh Saadu Abi waxoon Cheikh la goo xam ne yàlla moo ko jox mbindee fi yàlla moo ko jox mbindeef yëpp kon loolu jàpp naa ne jigéen ñi actuellement nii fii crise yi toll fii sëy yi toll fii jafe-jafe yi toll jàpp naa ne bu ñu royee ci soxna jaara bu sax dana am li ñu bëgg lépp dana ko am incha allah rabbi jërëjëf barakallah jërëjëf maam bu sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta mamaram